bismillaahi rahmaani rahiim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu xawli bokk ñu déglu asalaamu aleykum wa rahmatullaahi wa barakaatu asbaxnaa wa asbaxa almulku lillaah walhamdulillaah wa laa ilaaha illallaah wallaahu akbar allahumma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 dañ ciy tibb ci trésor bi indi ci pénc mi ñu jariñoo ko ngi fàttali ko nag benn dawra tashriiya bu ñu amoon ca grande mosquée benn boroom xam-xam bu ca ñëwoon taalifoon téere bu am solo tudde ko min kunoo si sunna yal yàlla def yëf yi ci téere jëfam wal fadlu lil mutaxaddimi kon min kunuusi sunna kunuus jam u kënz kënz mooy rënk walla ndàmb mbaa trésor ci làngaasu ñoom professeur Jibi bind bi weesu dañoo nekkoon ci defarub diggante ak la ca nekk ci tuyaaba keroog biñ koy def jotoon nañ ci tudd ndeysaan ku taxawoon ci defarub diggante nekkoon fële ca Treviso ci dëkk mu ñu wax Kolodiano tuddoon jeetaal dafañ ci taxawaay yu am solo biñ koy wax yëgaguñu woon ne dafa tawat ginnaaw gi lañ yëg tawat ga ginnaaw gi lañ yëg bu liggéey ba sunu borom euh, def ca la mu def yàlla na ko yàlla yërëm kon defarub diggante ci lañu nekkoon ci suñ bind bi weesu tey du ñëw ci beneen tomb mu tudd al istighfar xam naa baamtu lay doon ndax sëriñ Mbàkke Sylla fan yeenu génn jaar na ci ba xolu ñépp sedd waaye mbind meeg nin ko waajale moo demee noonu moo tax ak baamtu lay doon ca mbindam moomeeg bindam yooya suñ bàkki istixfaar istixfaar mooy sàkku ku la suturaal waaw sàkku ku la suturaal ku la suturaal mooy maanaam sàkku ku la jëggal njuumte bi nga def digganteeg sunu digg sunu sunu boroom waaye sunu digganteeg sunu moroom mën na faa am nga tooñ ba noppi sàkku ñu jëggal la tooñ gi yàlla bëgg na jaamam di ko jégglu waaye bëgg na diggante jaam yi ñoom ci seen bopp te di jéggalante niveau bi muy toll ci yàlla nag du ko tollu ci nit ñi déedéet ndax ñu bi muy toll ci yàlla mooy li nu li nuy def te di ko ko def mu tudd ay bàkkaar ki njuumte ki rëcc-rëcc borom bi ci mbaaxam daf ñoo yónnee benn saabu njàmpe ndox loolu lañ yónnee saabu njàmpe ndox saabi bi mooy xaafir njàmpeli mooy xafuur ndox mi mooy xafaar ñett yooyu la borom bi boole wutal ko nit jox ko ko yaakaar naa ko boole yooyu wax dëgg yàlla yàllam sëb tilim war naa mën a deñ ndox saabu njàmpe moo tax yàlla jëggal boppam ci turam yi ñetti tur ci istixfaar mooy xaafir xafuur xafaar waaw xaafir xafuur xafaar bu jëlee tur yooyu nag bëggoon sunu boroom jëggal la doo yem ci wax ko ci saw làmmiñ cër ya da koy jëf ànd ak làmmiñ wa xol ba fas ko ànd ak làmmiñ wa su boobaa jël nga saabu ba jël nga njàmpe la jël nga ndox ma sangu rekk ci des borom bi subhaanahu wa taala bu amoon koy mucc ci tilim tilim yooyu bu amoon ko dul soxla istixfaar kon sallallahu alayhi wa lay doon moom mim jéggali bàkkaaram lu jiitu muy nekkub yonent jéggal koy bàkkaaram bi mu nekkee bi yonent li yaxfira laka allahu ma taqaddama min zambik ma taaxar waaw boroom boroom xam-xam ne nañ bàkkaaru ñooñu nag ëpp na suñuy làmmiñ waaw xamuñu luy bàkkaar ya ndax xasanaatul abraar yi siyatul muqarrabiina waaw mu tax sunu borom ne yonente ba ida jaa nasrullahi walfatih wa raayta annaas yadxuluuna fi dinillahi afaaja fa sabbix bi xamdi rabbika wastaxfir wastaxfir ne ko boo demee ba gis nit ñi am nga victoire ba nga doon sàkku ca fatxu Makka délégation yi tàmbali di ñëw léegi xare ji woo xanaa ñoom ñoo ñëwal seen bopp ne na ko fa sabbih bi xam hamdi rabbika bàkk ma nag bàkk ma wastaxfiruhu te nga jël saaboog njàmpeeg ndox te wàcc di sànn nun la ko nun la ko ibnu abbas déggi woon moo waraloon jooye ma ndeysaan wastaxfiruhu mu ne yonent bi yàlla def na ko bu fekkee jot nga ci fatxu Makka muy victoire bi nga doon wut mu ne nga gis délégation yi du jóge dëkk bu ne ñu fay jóge di ñëw di dugg ci diine ji ne na bàkk ma man yàlla te wut ndox ak saaboog njàmpe waaw wastaxfiru waaw ibnu abbas daan yëf ya sotti na ndeysaan la borom xam-xam waxoon li kulli say in ida ma tamma nuqsaanu falaa yaxirru bi tiibil ayshi insaanu waaw istixfaara ngu noonu borom wax ko ci suuratu nasr muy isa jaa nasrullahi waaye boo demee ca lanfaal boo demee ca lanfaal borom bi wax ca ne wa ma kaana allahu li yuadibahum wa anta fiihim wa maa kaana allahu muadibahum wa hum yastaxfiruun seeteeteet waaw yàlla wax ak sallallahu alayhi wa sallam wax ak xeetam bi ku yëkkati loxom ne ashhadu an laa ilaaha illallaah yaa ngi ca biir teg ca wa anna muhammadan rasulullah def alxuraan muy sa téere def xibla ji muy sa xibla def jullit di ñuy say bokk ndeysaan ah bokk nga mu ne ko yàlla du mbugal yàlla du mbugal xeet wi li feeg yaa ci seen biir yàlla du mbugal xeet wi li feeg yaa ngi ci seen biir hmm? mu ne waaw bu doon wolof day wax naan rusé naa la ko bu doon wolof loolu lay wax ndeysaan ci xasida ak maam Sëñ Tuubaa radiyallaahu taala anhu fa innahum wa in azawka yaa ahad li gaflatin lam yushriku bika ahad qulubuhum laysat tamilu abada ila siwaaka min huna ila xada ba xasida ga jax ni sax seettt allahu akbar mbokk yi yàlla na jàmm yàlla nekk ci ak seen njaboot yàlla ne yonent bi ruse naa la sa xeet wi li feeg yaa ngi ci seen biir mu ne ah mu ne duma leen mbugal na ma defoon nit noox ya duma ko def sa nit ñi na ma defoon nit Lóot ya du ko def sa nit ñi na ma defoon nit Muusaa ya ko def sa nit ñi defoon nit Saalix du ko def sa nit ñi ah mu ne ko duma leen ko def de li feeg yaa ngi ci seen biir question bi mooy su ma fi jógee nag ndeysaan question mooy su ma fi jógee nag mu ne ko soo fi jógee am na la fi man a wut mooy istixfaar li feeg ñoom yastaxfiruuna mu ne mu ne ba tey cent pour cent lañ amoon dem nga dese nañ cinquante cent pour cent lañ amoon muy yàgg istixfaar dem nga dese nañ cinquante ba tax Ibn Abbas daana wax góor-góorlu leen ba bu cinquante yu rëcc góor-góorlu leen ba bu cinquante yi rëcc hmm? waaw waaw moo ji def astaxfirullah ci làmmiñ xol ba fas ko cër yi di ko jëf ah, waaw xol ba fas ko cër yi di ko jëf waaw sallallahu alayhi wa woon ci nun muy sunu kilifa ci boor yëpp di suñu roywaay ci boor yëpp di suñu gidd di suñu leadership nun ñëpp nu dox ci ginnaaw jëwrin yi ne ci tool bi dafa sa wax ca kanam saxaaba ya walladi nafsi bi yadi law lam tudnibu la dahaba allahu taala bikum wala jaa bi xawmin yudnibuuna fa yastaxfiruuna allah taala fa yaxfiru lahum rawahu muslim <laughs> yàlla nee na walla yonent bi ngeen baal ma maa ngi giñ ci ki nga xam ne sama bakkan bii de sama ruux ci loxoom la nekk suñ leen bind woon ni malaaka ba du ngeen bakkaar yàlla jële leen fi indi fi ñeneen ñoo xam ne dañ koy tooñ di ko lu mu di leen jéggal moo kee kee ka bëgg ak njéggal yàlla nu jéggal yàlla nu jéggal waaw yàlla nu jéggal waaw tabarkàlla looloo tax moom mu ne xaala yeb yabna aadam yana yabna aadam innaka maa daawtani wa rajawtani xafartu lak ala ma kaana minka wala ubaali loolu moom danga ko sañ moom sunu borom yabna aadam li feeg yaa ngi may yaakaar di ma ñaan ma jéggal la ma di la te sama yoon ah waaw loolu ñuy wax gracier te président yi di ko def suñu président bii def ko barki démb yal na ko yàlla yokk wér mooy gracier loolu ci président yi am sañ-sañ bu ko raw la yàlla am moo tax mu teg ca baatu walla ubaali wala ubaali mooy nit nit su fekkoon njëggal gi ci loxoom lay nekk du daj ñépp waaye yàlla mi nekk ci loxoom moom moo mën a maasale baal ñépp wala yu bàyyi hmm, waaw waaw yabna aadam innaka maa daawtani wa rajawtani xafartu lak ala ma kaana minka lu lépp loo ma mën a def mën naa la ko baal wala ubaali cettt yabna aadam yabna aadam law balaxat dunubuka anaana sama suma staxfartani xafartu lak wala ubaali cey bu ñu jóogoon say bakkaar dakaar di ko jóog di ko jóog ba mu sut état si dakaar yi say bàkkaar sut étage yi Dakar yi xam naa experts yi xam nañ ban etaas moo fi gën a gudd ci dakaar ne bu say bàkkaar tolloon noonu nga walbatiku ne ma jëggal ma mu ne ma jëggale te sama yoon ko ci waaw cey waaw ma jëggale te duma faale dara yam na Adam innaka law ataytani bi quraabil ardi xataaya summa laqaytani laa tushrik bi shay'a la ataytuka bi quraabiha maghfira aw kama xaala mu ne yow doomu aadama bu la say bokk sangee sang la di sant yal na nu ko yéex a defal <laughs> bu la say bokk sangee sàng la teg la ci jaat gi ŋàbb bu ñëw teg ci kanam ilimaan ne ilimaan doxal ilimaan laaj ay bakkaaram ay ay ay ay borom ñu fay bor ya woy seede ya seede waa ji ñu jël ko gas pax bu mu xóot dugal ci biir sunu borom ne bu fekkee bi ngay dugg ci biir bàmmeel bi sa bàkkaar yi mu ngi fees dell dellu suuf si mu ne waaye malaaka yi lëñ bàkkaar yi seet konteneer yi seet bagaas yépp valise yi li nga indi ci tuyaaba lépp ñu seet ko li nga indi ci bàkkaar lépp ñu seet ko gisuñ ca bokkaale hmm? mu ne te gisuñ ca bokkaale ma jéggal la njéggal gu toll ni sa bàkkaar yi waaw waaw moom la imaam Busiri doon wax ca ndeysaan euh, ca am siyaam ba ndeysaan ba fa wala boog ca mii miyam ba waaw ca mii ba te mooy burdu waaw loolu la abu nawaas waxoon sunu borom ba muy tuub abu nawaas dafa dafa mën a tooñ dafa mën a bàkkaar ba pinc mi yëpp seen yaakaar tas ci moom mu xëy benn bis rek wutu kayitam na sunu boroom lettre bi ci yow la jëm mu ne ko li may njëkk a wax mooy ku rëy ay bàkkaar la te bari la ko waaye sunu borom maa ngi lay yëgal ne gëm naa ne sama bàkkaar yaa leen ëpp xajoo ci ñoom ne na ko looloy sama bind bu njëkk ci lettre bi ne ko ñaareel bi yow soo ma baalee te bëgg duma man ngaa am ñeneen ñoo xam ne mën nga leen a duma fekk man baal nga ma ak ñi mel ni man mu ne ko waaye soo ma baalut man awma keneen ku may baal yow man nga maa baal ba noppi duma waaye man soo ma baalu du ma am ku ma baal muy ñaar mu ne ko ñetteel bi nag bu fekkee ñu baax ñi rekk ñoo lay yaakaar ñun bandi yi fu jëm <laughs> cey Abu mu ne ko su fekkee ñi baax rekk la yaakaar ñun bandi yi fu ñu jëm daal di ne wasalaam boroom xam-xam yi ña ngay wax ci tuubam nga ba démb boroom xam-xam yi ña ngay wax ci tuubam nga ba démb Ah, waaw abdullah ibnu omar yal na yàlla gërëm ko gërëm baayam omar nee na kunna naudu li rasulillahi fi l majlis alwaxida mi a marra rabbi xfir lii watub alayya innaka anta tawaabu rahim abdullah ibnu omar nee na daanañu toog ci barab man faa konteel yonent bi téeméer yoon yoo xam ne dañuy dégg muy wax baat yi du yor kurusam de déedéet waaye day toog ñàkk rek nga dégg mu ne rabbi xfir lii wa tub alayya innaka ant tawaabu rahim bu ko defee yow mi konte yaay dégg naa benn jékki déggaat mu ne rabbi xfir lii wa tub alayya innaka anta nga konte muy ñaar balaa balaa jataay bii di jeex rek da nga dégg téeméeri yoon mu wax baat yi waaw rabbi xfir li wa tub alayya innaka anta tawaabu rahim waaw ku mas di toog ak sunu wajur wa xaaj abbas sàll am na baat yu mu daan tudd waaye bu ko daan tudd da yëg yow mi toog ci wetam ni yaram wi yëge ni mu ngi koy tudd maa la ko wax de waaw du jékki-jékki rek tudd baat yi sunu xarit ba nekkoon ca cene ba Oustaz alin Gueye loolu daana ko dal jékki-jékki tudd ab baat waaye yaram bi yëpp di trembler wala yaram yëpp yëngutu di di vibre je pense que nu lañ koy waxe loolu lu am solo la ba demee pencum laayeen waaw ngi nii ci sunu sunu wet moom it dañuy yar nit ki forme ko ci laa ilaha illallah waaye ñoom it dañ koy wax lu bare bari ba demee pencum sunu maam ja Cheikh Islam Haaj Ibrahim nun la ci penc ma dama bëgg wax rek ne sallallahu alayhi wa sallam daan ci benn barab bala faa jóge nga mën a konte téeméeri rabbi ixfir lii wa tub alayya innaka anta tawaabu rahim téeméer yoon abdullahi ibnu omar moo na ci li addis boobu waaw rawahu abu daawud wa tirmisi bi isnaadin bi isnaadin saxiix Oustaz Cheikh Tandian mbokk yi bind ngi nii ba am solo muy istixfaar muy istixfaar te mooy astaghfirullah ak loo ca teg waaye bi nga koy wax baat bi mooy yàlla maa ngi sàkku nga jëggal ma na ca xol ba ànd na ca cër ya ànd làmmiñ wax ko kon ibaada googu ibaada lisaaniya la ibaada xalbiya la waaw ibaada jawaarix la mbokk yi bind nga noonu nañ ko jël di bari lu ñuy wax istixfaar ndax mooy deuxième sens bi benn sens ba dem na mu nga tëdd ci jàkkaam ja sallallahu alayhi wa beneen sens bee fi des mooy istixfaar moo tax léeg-léeg boo dégloo fajar nga dégg mag ña nekk ca jàkk ja naan astaghfirullah al azim alladi laa ilaha illahu di ko bamtu di ko bamtu loolu jaroon na ñun ñëpp bu ñu ko déggee te nekkuñu fa bu ñu xëyee taxaw ca buntu jàkk ja ku génn ñu jox ko loxo <laughs> jaajëfal ko sant ko gërëm ko buñ ko mënta jox dara it jërë ngeen jëf